ñun dafa am loo xew ñu expliquer ko suñu ministre mu comprendre ko ministre bi nag kon book il faut ñu def dawalee nii bindaat décret yi nañu meloon man ma porté bi nga xam ne maa ko yayoo beneen bi ñu jox ko ministre de la fonction publique mu porté ko ndaxte ministre de la fonction publique euh, ministre la justice dafa comprendre ne effectivement décret yi ñu jëloon pour def réforme dafa am ñu ko soppar ñi ñu wax ko ko expliquer ko ba mu leer ci boppam du ministre bii nekk fi njëkkoon nekk muy Malick Sall xam ne avant muy comprendre dañoo xeex ak moom 73 jours ab ba ñu demee ba nekk ci jàmm lañ ko expliquer mu ne ah léegi maa ngi doo comprendre bind ñaari décret ne bii dama koy wéyal bii ma jox ko ministre de la fonction publique mu dem Ismaïla Madior Fall ñëw comprendre la Malick Sall doon def jël diplôme jël bi nga xam ne ministre la fonction publique moo ko war a porter mu dem jox ko ko muy Galoba depuis début 2023 janvier 2023 exercice bi nga xam ne sud juge defoon na ko ak ministre de la justice maanaam waxtaan ak ma ba mu comprendre moom la ñu dem def ma sol sama dàll ànd ak sama adjoint bu ñu wax maître Souleymane Jules Guèye ministre de la fonction publique recevoir ñu le 31 janvier 2023 janvier 2023 ñu expliquer ko ne ko dafa am falsification dañoo soppal ñu décision yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko wan ko bi défi bi gouvernement bi adopté woon wan ko yi ñu signé wan ko li mu yàqee kii bi mais janvier ba tey ñu gis ne day muusoonteeg ñun loolu ñuy wax dilatoire. Mhm. ba ma demee ba sonn ma bind président de la république lii may expliquer ci mbedd mi laa bind na ko président sa décret bi ñu ko soppar ñi mhm. président bind ne dinaa la recevoir jox ministre de la justice lettre bi ma ko bind ne ko nañ leen organiser rencontre bi entre temps président yeneen yu bëri xew fii élection yi affaire Ousmane Sonko yi dëkk bi jaxasoo taluñu ñu toog di xaar lettre ba maa ngi ko bind avril ñu dem ba 29 septembre ba ma demee ba xam ne dëkk bi sedd na ba mu décidé can candidat am ne kii mooy sama candidat ba lépp jeex ma dugalaat beneen audience. dugalaat beneen audience toog di xaar ministre la fonction publique di muusoontoog toog di muusoontoog ñun. di Ismaïla Madior Fall maa koy seedeel daf ko woo ba sonn am na yoo xam ne sax moom koy woo maa taxaw lu nekk wax na ko waa bi dëgër bopp rek. ne du nga wuyu ah ba Ismaïla Madior Fall demee kii ñëw Aïssata Tall Sall ñëw duñ ko may nag comme la ñu mayoon que parce que mbir bi jeex na ba pare ndaxte dëkk réforme yi ay engagement président Macky Sall la bu président Macky Sall demee kay ñëwaat du am temps kon boog du chantage question d'opportunité la léegi ñu lu ñuy def mooy aider sunu ministre one est en train de l'aider parce que son collègue de la fonction publique est dans une attitude irresponsable te nag foofu du ñuy wax président Macky Sall li ko fi dese bëriwul na matal engagement yi mu jëloon au nom de son code d'honneur parce que un métier essentiel muy métier de greffier ñu ngi koy rey ñu ngi koy rey ki nga xam ne tey bu lu juge bind tant que signé wu ko du nekk décision kooku kenn waru ko fragiliser dama leen jox benn exemple nga xool doole greffier fonction nu mu nu mu amee solo xool leen temps histoire boobu amoon fi recours kii bi nu mu tuddati Ousmane Sonko bi xam nga am na benn juge boo xam dafa ne moom bokk ci mais ki bind dessiné kii bokk ci ba ñoom parti bi ci la la ngaamu pour def ay recours recours bi mu def greffier bi la moo bind ne juge bi nee na fekkewul kon kooku du ab secrétaire boo xam day toog di seetaan dafay toog di bind la fa xew ku ci nekk buñ la buñ la joxee sa àq nga xam ko buñ la joxee sa yelleef nga xam ko bu dee juge bi def na wareefam ñu xam ko. ah kon loolu ma gis noonu. greffier bi moo ko bind greffier bi moo ko bind bind bu bu la boobu ba moo tamponné. moom gis nga tey moom constaté li xewoon ci tribunal dama ne gis nga tey décision bu ñu rendre tribunal bu ko greffier certifié wul c'est un papier contenant la décision du d'un juge. da koy tënk da koy tënk mais pour mu nekk un un authentique bu ñu ne nii la demee. il am ku toog ne maa ko fekkee nii la demoon kooku la loi bi jox ñu tuddee ko officier public ni notaire bi nekkee officier public noonu la nekkee notaire officier public ni huissier bi nekkee officier public noonu la nekkee mais mu gën a garaawati day conserver ay acte de puissance publique muy acte de judiciaire kooku kenn waru ko jàpp di ko ñàkkloo fayda di ko na ñu président de la République dafa réforme ba pare ay juristes yoo xam ne xamuñu dara ci fonction publique ay juristes ñoo xam ne jaaruñu duñu ay fonctionnaires defuñu concours ENA defuñu concours centre de formation judiciaire defuñu génnewuñu ENEA ñu recruter leen ni ñu daggee ci langue ñu indi leen fa ñuy toog di wax greffier yëpp nañ leen jëlaat delloo leen waat école quest la non xoolal loolu rek demal naa waaye naka lañ nekkee juriste alors leen recruter rek yaa ma neex sama ni yaaya doon liggéey mi ngi dem retraite am naa jarbaat boo xam ne am na maîtrise en droit ma indi ko defuñu concours defuñu dara ñun ñu def concours jël ko mu toog ci bureau. toog foofu di jël ay décision waaw léegi nag juriste yooyu. ñooy jàng ñooñu du ñu àtte rek. non du ñu àtte juriste ah, mooy ko ah, jàng droit rek. du ñu bokkul ak juriste non non non ñoo nekk foofu jàpp xelu Galoba ministre de la fonction publique di ko fooye ba Galoba mënut a respecter li ñuy wax principe euh, de solidarité gouvernementale tey ministre de la justice dafa bëgg defar li yàqu këram. galo da ko cee war a jàppale. ma leen di wax réunion bi ñu amoon le 16 novembre xam ne Galoba moo ko woote administration centrale yëpp nekk fa ministère de la justice yónni ab magistrat hors de de hors hiérarchie mu nekk directeur des services judiciaires waaye kuy xam droit ba gis magistrat war a xam ne que daj dëpp gàngo koo xam ne def na vingt ans de carrière ñëw ne ministre li sud wax ñun waa ministère de la justice ci la ñu taxaw. le SYTJUST moo am dëgg on en phase avec le SYTJUST sur ses revendications jàpp argument yi nga xam ne juristes yooyu xam ne jaaruñu fenn duñ leen fa indi si ma neex démonter ko pièce par pièce ba xam ne ña woon ca salle ba yëpp waa trésor waa administration centrale yu bëri surtout nag le haut conseil du dialogue social ñëpp xam na ni kii li mu li ñuy wax ay caaxaan la. dialogue social mooy NTAP li mu jiite waaw mooy NTAP waaw yi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñooy àtte. ñëpp xam ne ni ministre bi lii ñu ko wax dëgg la ministre ba ca boppam woote ne ah kon suba nañu daje maag ministère de la pour pour harmoniser suñuy harmoniser suñuy position ndax benn position moo mën a am. waaw mu doon jeudi 16. te ëllëg si ñoom ñu waroon daje àjjuma après ñu war ñu woo wax si gannaaw ëllëg si ñu gisee galo ba dem taxaw tri dem taxaw ca assemblée nationale di wax woy greffier du ñoo bañ formation. ah tey di di ñu imposer. non ban formation lañ leen di former à nouveau. di demaat ñu demaat école ñu jàngalaat ñu métier li ñuy formation initiale xam nga initiale mooy lu ñu lay tàggat. man mi def 23 ans de greffier. waaw mais yow école nga génne. école bi may génn école ne il y a ans de sa gis. waaw waaw ne ñu delloo ma waat école. formé ma waat. ci lan pour ma am niveau. hiérarchie bi waxi daal wax hiérarchie A2 ay waxi caaxaan yoo xam ne maanaam gis nga ministère de la fonction publique yàq nañu ay dund doomu aadama. yàq nañu carrière doomu aadama am na ay nit loo xam ne lu leen yàlla xañ ci nu mu traité biir biir fonction publique mi ngi ko jaare ci loxo juriste yooyu xam ne xamuñu dara ci droit de la fonction publique président de la république avant muy dem war na xool fonction publique dafa war a raxas juriste yi fa nekk yépp dugal fa ay fonctionnaires yoo xam ne sont de fonctionnaires pur jus ñoo xam ne dañoo non seulement am nañu seen i diplôme mais dañoo def concours ñu tàggat leen ENA wala centre de formation judiciaire wala ñu génne ENEA wala ñu génne de bonnes écoles de de formation. Mhm. ñooñu ñoo war a nekk fonction publique di laal ci carrière yi. parce que lii ñuy def nii fu mu nekk nii. Mhm. doy na waar doy waar goo xam ne bu yàggee. tribunal yi si boppam ñooy yàqu. ñooy sax na sax te nag président Macky Sall dafa am une obligation historique lijjanti lii avant muy dem muy muy muy mu fiy jóge. d'accord bu ko fi bëriwul. mais ni ko lijjanti beneen bi. mooy mu tudd le premier ministre. bind nañ ko chef du gouvernement candidat à la présidentielle parce que ça il s'engage à régler les difficultés les problèmes du Sénégal il y a un problème bi nga xam ne il a la possibilité de le régler na ko régler dimbali ci président de la République ñu régler ko daal di jàll bala ñoo dem ci élection waaw ndaxte kat balaa nga maa ne naa la régler problème ëllëg da nga may régler problème tey boo ko mënee tey bii